maa ngi tudd madame Dieng Ndeye Marie Ndiaye donc euh, nekk juriste de formation. dama nekk ak sama ay sœur euh, ci commune bi ñu wóolu ma fal ma jàppale ma ma nekk seen euh, seen ñu bëgg ma bu baax a baax a baax ma ànd ak ñoom nag di liggéey ma ñëw nag gis leen ñu nekk ay jigéen yu am jom jigéen yu nga xam ne yi dañu am fulla ak fayda ma fekk leen aussi ñu nekk di liggéey. ñu àndandoo monter ensemble réseau bu mag bi nga xamné bi mo nek ci biir commune bi di ci liguey di def activité yu bari euh, di def également du social alors mo waral tey jii ci goudi laylatul khadr bi ñu àndandoo waxtaan ñun ñep ñu ne dal nañu àndandoo bolo jëm ci jàkka yi def nañu def nañu douze jàkka yi au niveau de la commune jobul leen suñu euh ci ci ci bés bu màgg bi bés bu tedd bi ci wéru koor gi ni ban message nga ci nga ci lancer femmes yi nga xam ni tey ñoo ñëw participer si ndogu bi nga organiser pour la deuxième fois xanaa di leen ñaanal rek di leen euh, feddali sama coloré di leen wax ne ci kaw ca kanam gis naa li ñuy liggéey ci commune bi ndax euh, ñu ngi liggéey liggéey bu am solo euh, vraiment mënuma lu di leen ci gërëm di leen wax ñu gëm seen parce que dafa am solo ñu gëm suñu bopp jigéen bu gëmee boppam rek dina dem fu sori en tout cas maa ngi leen di ñaax daal ñu gën ñu gën a jàppandoo li ñu def tey jii gis ngeen ko tey jii dogu la bu nga xam ne bii ñun ñëpp ñoo àndandoo tok lekk yóbbu ci jàkka yi comme ni la ko waxee léegi toog aussi ñu toog waxtaan échanger loolu moo waral suñu journée bi tey jii. Euh, bu weesoo euh, joxe ndogu bi ci weeru koor yi yaag famille ni fan ngeen jëm. voilà ñun dañu am suñu benn plan d' action wax parce que ñu ngi ñu ngi yëngatu ci développement donc def nañ fi ay activités yu yu bari liggéey nañu def nañu suñu euh, ay consommer local def nañu suñu ay euh, araw suñu ay manam dal def nañu dal lepp lu nga xamné dans le domaine de la formation renforcer seen i capacité parce que loolu tam moo gën a am solo parce que bala ngay wax dara bala ngay mën a entreprendre da ngay xam le marché da ngay xam da ngay wóolu sa bopp donc dañoo renforcer suñu capacité ba pare léegi nag ñu ne nag léegi ñu ngi commencé di liggéey di tourner ouvert aussi bien sur le plan national que sur le plan international di woote nak ñu ñu jàppale rek parce que ay jigen lañu donc euh, amuñu doole torop nonu mais amna ñu pas amna ñu nañu ngëmte lool la loolu waral tay ji ñu tok ñu tok di waxtaan ak yoyu te ko aussi ku ñu ci jappalé ñu jëm. gis nañ ni président de la république ak ministère mise nañ torop ci entrepreneuriat féminin ak jeunes yi tey ban message nga am pour lancer leen par rapport ak euh, yëngu jigéen ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci entrepreneuriat fii ci commune de Dieuppeul Derklé. di remercier di remercier le président de la république ci wax dëgg yàlla cër bi mu may jigéen ndax boo ko seetee moom jigéen moom defe naa ne euh, daf ko fonk. loolu moo tax effectivement képp bépp jigéen bu nga xam ne bii yaa ngi entreprendre rek daf lay jàppale bañ na ko mettre na benn ministère à disposition donc kooku mënuñu dudul di ko gërëm di ko wax ni ko di ko tàllal suñu loxo ni ko faamu jëppal derke yaa ngi nii Castor ñun ñëpp ñu ngi nii di tàllal suñu loxo di ko remercier nag évidemment ci euh, action yi muy def envers les femmes di remercier également la première dame aussi nga xam ne jigéen ñëpp la boole di leen jàppale sama kàddu mucc daal mooy euh, maa ngi remercier waat encore une fois sama sœur yi parce que ñun comme ni ma la ko waxee ñoo bokk ndey bokk baay di liggéey ci réseau bu mag bii nga xam ne ci commune bi la nekk ku ñu si jàppale ñu ñu ñu jël vraiment ñu ngi tàllal loxo ñëpp nag.